sama noonu hayya ala salaam مرحبا بالخائلين عذر حي على الفلاح وحده لا شريك له له الملك الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحسر ولا تدخل تحت أعداد gaayatu maxsuulaatiha alfawsu bilxuluudi fi ljinaani wannadari ila wajhi macbuudi lcibaad wa salla wa sallama ala xayri munaadin li haasihi saadaati li haasihi saadaati naada sayidina muhammadin alladi yasxadu man labbaa dahwatahu wa yabuuru man xaalafahu hinaada wa ala alihi wa sahbihi almuwaddihiina li tariq liman jaa baadahum min ahli tawfiq amma baadu fa yaa ibaadallaahi ajiiboo daahiyallaahi nasiiha bitawbati ilallaahi tawbatan nasuuha wa tuuboo ilallaahi jamiihan ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihuun inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu almutatahhirin wasbiru ala iqamati faraidihi allati faradaha alaykum daakum biha ila hadratihi li yukrimakum wa'daru min tadyiihiha fa inna fi tadyiihiha taharrudan li halaaki mudiihiha fa man qaama biha ala sunnati rasulihi alkarim ajaarahu min adabi naari aljahim wa ahalla lahu ridwanahu fi jannati naim wa ridwanum min allahi akbar dalika huwa alfawsu alazim wala siyama hasihi alsalawatu allati tudhawna laha fahabuha akbara min akhawatiha wa ajallaha lianna maqamaha lianna maqamaha fi alhibadat maqamu alrasi fi aadaai dhat fa farrigu laha alquluba maalla nazari rab wattaxiru laha althiyaaba wal ajsaada tafuusu bilqabuli walqurb inna salaata tanha an ilfaadaai walmunkar wala dicrullahi akbar wa fi lxadisi buniya alislaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaai sakaati wa xajjil bayti wa sawmi ramadan rawahu lbuxaari wa muslim yaxfiru llahu lii wa lakum wa li jamihi lmuslimin amin الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله fala tuxaalituhu sunuun ahmaduhu subhanahu wa taala bi mahaamidihi alladi yadkuruhu biha almahaamidun wa ashkuruhu bi sukrihi alladi taqarru bihi aluyun wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wahdahu la sharika lahu al lahu al wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah al alimu bima kaana qabla an yakun wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu yaa lahu min nabiyin tasharrafat bihi al anbiyaau wal mursaluun allahuma fa salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman daaimayni mutalaazimayni ila yawmi yubxasuun ama baadu fa yaa ayuha nnaasu ma hadihi alxaflatu allati antum alayha aakifuun tasmacuuna almawaacida kulla jumhatin wa antum anha mucriduun atazunnuuna annakum fi dunya muxalladuun am tatawahamuuna annakum laa tamuutuuna wala tubxasuun ayna alanbiyaau ayna alawliyaau ayna almursaluun ayna alumamu almaadiya ayna aabaaukum alaqdamuun qad saaroo wallahi fi turaabi wa hum laana daaibuuna mutaqatticuun kullu nafsin zaa'iqatul mawti wa nabluukum bis sarri wal xayri fitnatan wa ilaynaa turjaxuun wa fil hadiisi akthiru min qawli laa ilaaha illallaah qabla an yuxaala baynakum wa baynahaa wa laqinuuhaa mawtaakum wa fiihi xayrukum man taala humuruhu wa hasuna hamaluhu wa sharrukum man taala humuruhu wa saa hamaluhu yaxfirullaahu li wa lakum wa li jamiil muslimiin amiin bismillahi ma seetaan allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin yusabbihu lillahi ma fi lsamawati wa ma fi l ardi almaliki alqudusi alasiisi alxakim huwa alladi baasa fi lumiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa alasiisu alxakim dalika fadlullahi yootihi man yasha wallahu dul fadlil azim mathalu alladina xummilu tawreeta summa lam yaxmiluha ka masalil ximeeri yaxmilu asfaara biisa masalul qawmi alladina kaddabu bi ayatillah wallahu laa yahdi alqawma alzalimin qul yaa ayuha alladina haadu in saamtumu annakumu awliyaau lillahi min dooni naasi fa tamannawul mawta in kuntum saadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin qul inna almawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila alimi alxaybi walshahadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسحوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wa ida ra'aw tijaratan naw lahwanin faddu ilayha wa tarakuka qaa'ima qul ma hindallahi xayru min allahi wa min atijara wallahu xayru rasiqin allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana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 alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalliin hal ataaka xadiisul gaashiya wujuuhu yawma isin qaasica caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya tusqee min caynin aaniya laysa lahum tacaamun illaa min dariic laa yusminu wala yuxni min juu wujuhun yawma isin naima li sahyiha raadiya fi jannatin aaliya laa tusmahu fiha laaxiya fiha aynun jaariya fiha sarurun marfuatun wa akwaabun mawduua wa namaariqu masfuufatun wa saraabiyu mabsuusa afalaa yanzuruuna ila libili kayfa xuliqat wa ila alsamaai kayfa rufiat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila al ardi kayfa sutihat fa dakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawallaya wa kafar fa yuadibu llahu alazab alakbar inna ilayna iyaabahum thumma inna alayna xisaabahum allahu akbar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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbooleem mbokki jullit yi di nuyu sëñ Maxtaar Jenn mii maag sama mbokk yi fi dajal ñii. ñu teewal fi Sëriñ Muntaxa moom lañ fi jëmal kàddoom it moom lañu fi yëkkati du suñ kàddu bopp mooy di sant mbooleem mbokki jullit yi fi teew yëpp di sant mbokk yi fi teew yëpp ci aw di leen gërëm di sant mbokki jullit yi ñëw fekke si julli gii ndax bis bii day fursatu boo xam ne bu mag la ci lislaam mooy fu ñu ubbee jàkka ndax jàkka dafa rëy ci yàlla lool ba mu wax ne boo ko tabaxee ba noppi bu ko moomale kenn ku dul yàlla wa anal masaajida lillaahi falaa tad'u mahallaahi ahada di loo xam ne dafa ñor suñ boroom ñor sëñ bi ba mu ne waccal bu yooti yi kullaha masaajida sama néeg yëpp sama kër yëpp na ma ko defal muy jàkka ñaan googu nag moo nangu ba bii ci la tàbbi kon kon war nañoo sant yàlla bu baax a baax a baax ndax moom lu mu mas a wax ak yàlla rek yàlla defal na ko moo tax léegi jàkka yi bari na te day tàmbali rek waaye kenn xamul fu jëm ndax lu mu jéggoog yàlla rek yàlla buy nangu fa muy fa muy yem kenn mënu koo xam ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen digal li sëñ bi daa digle rek mooy sëñ Tuubaa ku fonk lislaam la sëñ Tuubaa ku fonk jaamu yàlla la moom la digal it hectare bi ñu fonk kon ñaari baat yi sëñ Fallu daa wax fexe leen ba lislaam ji bu mu fagg fexe leen ba taalibe gi bu mu fagg ñaar yooyu nañ góorgóorlu ba fexe ba ñaar dara bañ cee fagg rek buñ ko defee suñ bi li ñu suñ bi bëgg a yéene te bëgguñu koo jox danañ ci jot ci lépp teñ mooy ci li alxuraan rek rek wa man waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci buungu yàlla gi te bu leen teqalikoo wa man yaxtasim billaahi faqad hudiya ila siraatil mustaqim ku mooy ci yàlla naka wóor ne teg nañ ko ca siraatil mustaqim kon nanu yàlla dimbale ba li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg ab taalibe mel ni ñu fexe ba góorgóorlu ci sëñ Abdou Xaadir daana wax ne sëñ bi nee na nee na jëlee na ci sëñ Madlaay Jóob mu ne sëñ bi daana wax ne dee leen dëggal seen baaxub sëriñ ci seeni melo te bañ koo dëggal ci seen làmmiñ kese yem ci nee na li nga koy dëggale ci sa sa melo nag mooy nga yor melo wow ku ne day mujj di laaj kii ku mbokk ku mu aju waaw nee na boo boo ko defee yaa ngi liggéeyal sëñ Tuubaa boo defee ni boo tatbiixee awaamiri seex moo maanaam ndigali sëñ boo ko dëpp boo ko defee niñ la ko waxee foo nekk kooka dana laajaat ba xam kii ci ku mu aju ndax sa diine dara du ca ayib sa digganteeg say dëkkandoo dara du ca ayib sa eh, sa sa ñi nga nekkal ak ñi nga xamante ne ñëpp it da nga am ñoom jàmm te loolu mujj tamax bu ko am dana jëm kanam te du dellu gannaaw te kuy tabaxu mujj tamax it ci loolu nga koy tàmbalee kon nañ góorgóorlu bu baax xam ne ki ñu àndal lim ñu digal mooy ñu doon dëgg-dëgg jullit lim ñu digal mooy ñu góorgóorlu ci ndigali yàlla yi. lim ñu digal koo xam ne da ngay wax sa waa kër sax ne leen yéex a julli sax bu leen ko jox bu leen ko def wan mi azima zanbi lil mu aqiri xatta tafuutahu bila udrin duri wan mi askanal azima zanbi aji màggi bàkkaar lil mu aqiri ñeel ku yéex a julli xatta tafuutahu ba julli ga faat ko bila udrin ci lu dul ngànt duri loolu xamee na képp koo xam ne julli jot na nga ne ci caaxaan rek ak ci waxtaan waxtaani adduna ba waxtu wa jàll muxtaar ma jàll ngay sàgganit ba la réer jàll te ci ci ci ci sa bakkan dong nga nekkoon Sëñ Tuubaa nanga na nga askan kooku bàkkaar bu rëy ne am na ko kon nañuy góorgóorlu di fonk ndigali yàlla yi fonk lislaam lii nag ñi ngi lay ñaanal yow mu doon liggéey buñ nangu naa la wóor ne daal ku defal sëñ bi lii ci dëkk bi ak daara yaa ngi koy defal lu mu bëgg waaw kon nag yàlla na yàlla nangu liggéey bi eh, eh, te te te defal la ci lu kawee sa njort ndax eh, ku daw def loo xam ne xam nga ne lii bëggu sëñ bee bu nit ñi dee sant yaa war a sant ndax moom ak wàllam mën na ko te te noonu ko mag ñi daa waxe rek guraam du sànkan waaw kon nag yàlla nu yàlla dimbale ñi ngi soñ ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla nangul ñu jaamu yàlla ndax julli ci mbooloo yéen ñi jege fii ñëpp na ngeen fonk jàkka ji ndax julli ci mbooloo ëppee na daraja yow dong ngay julli ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar waaw bi sabhin wa asrina daraja loolu la téere yi wax ñaar boo toogee yow dong julli moo tax dañ laa digal foo julli woon yow dong boo fekkaatee mbooloo muy julli buru timis dangaa war a ñëw baa mu julli ngir am ngëneelul mbooloo kon mbooloo yonent bi wax ci jàkka suñu sañ bu daan ko bindal laa salaata li jaaril masjidi ila fil masjidi boo dëkkeeg jàkka yonent bi nee na sa sa julli boo dëkkeeg jàkka boo julliwut ci jàkka ji day mel ne julli woo ndax lii bu bari walay faat naam julli nga waaye loolu ab soññee la kon nañ góor góorgóorlu bu baax te yaa te te te te di ko dundal ndax jàkka moom ku ko dundal rek eh, daal ngay tàbbi ci ñooñu yàlla wax ne amaana nga bokk ci ñi jub innama yaamuru masajida llahi man amana billahi wal wa aqama salaata wa aata sakata wa lam yaxsha illa llah fa asa ulaika an yakunu min al kon yàlla nu yàlla boole ci ñooñu wa kullaha min wantu bi xeyrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi waaw ah, dëgg la. ci lañ la xamee ci lañ ko judd. dëgg la waaye lu nag nite la ñuy waxee. doon doon doon sëñ Tuubaa Matar mii. dafa mi naa seede. ngi dëgg ëpp naa ñekk wax ñaar yi ñooy mot leen ñooy mot alihi wa sahbi wasallam wa baraka wa xalili wa habibi alayhi salatu wasalam wasalam alihi wa sahbi ma qultu waxtartu wa radiyatu lahu bil ali wal mali bila abda انه صلى وبارك وسلم امين يا رب العالمين صلى الله عليه امين اللهم صل وسلم تاما على سيدنا محمد على سيدنا النبي الامين بارك بينك وتقضى بينك ويطلع البر غايب وصل خاتمه سيسن خام بويس الكريم وعلى اله وصحبه كلهم نجه يا للمستوى عبد السلام على السلام من ايدام القضاء سلام بلس تاسم المجلس قوت يسرنا يا رب امين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه علي ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع وبرزت